mooy dañuy jàppale ci eh, dugg xale yi jigéen yi eh, gën a dugg gën a am taxawaay teewaay ci biir centre de formation yi ak tamit bu ñu fa duggee ba pare ñu toog fa bu ñu fa toogee it ñu mu amal leen njariñ amal njariñ bi mooy ñu am fa ñu bu ñu fa génnee ñu am lu ñu jàpp eh, loolu nag dañ koy jaarale ci renforcer seeni capacité maanaam yokk leen xam-xam yokk xam-xam boo xam ne day dem day romb liñ leen di jàngal ci programme yi déjà mais dañuy ñëw renforcer leen ci plaidoyer ci ñu xam lan mooy nan la ñuy taxawoo ba xeex li ñu bëgg ña laaj ko autorité bi ci yar ak teggin ci ay techniques yoo xamante ne dañ leen koy jàngal ñu ñu ñu wax seen difficulté ci kaw difficulté bi ñu invité autorité bi à ce que mu jàppale leen ci lan mooy tax ñan seen nekkin gën a gën a neex gën a yomb ak i tamit euh, ñu war leen former former enseignants yi tamit ci ay techniques yoo xamante ni dañu sensible ci couche boobu parce que booy jàngal ñoo xam ne dañu nekk ay wëylaago dafa am taxawaay boo war a taxaw dafa am kàddu goo war a am dafa war a am euh, bët boo leen di boo leen di xoole waxuñu bëtu yërmande mais bëtu yemale bëtu yemale bi mooy nga jàpp ne que ñëpp a yem et euh, ñun ñëpp ay êtres humains lañu donc mu nekk approche fonde sur les droits humains boo xam ne dafay tax Euh, tey jii environnement scolaire maanaam biir euh, bërëbu jàngukaay yi ñëpp yem fa ñëpp am chance su euh, bu fa paree ñu jàpp ci dara nga ñàkk a jàpp ci dara bañ a nekk loo xam dañ koo wékk ci sa laago bi waaye ci sa xam-xam ndax bu fekkente ni kii yàlla muur ay bëtam la mi ngi xelam te ñu nekk ñoo xam ne tam dañu xarañ lañu ci suñu école yi boo leen di jàngal ngay xam ne ñoom ñoom yenn saa sax dañuy mën ñi nga xam ne ñoo jàpp seen bopp njàccaa ah mais bu ñu eggee ba ci insection bi yenn saa yi pour ñu jël leen dafay am fu muy sooxee donc nag projet bi ci loolu la gën a taxaw dooleel leen ñu am woolu seen bopp confiance en soi bi gën a xam ne ñoom am nañ capacité wu euh, def seen plaidoyer yi ñoom ak technique yi ñu di jàngal ñi ñuy nekk dina jàngandoo ak ñoom itamit gën leen xam ne ñoom seen i ñu te dara wàññeekuwul ci ñoom waa génne tamit dañ leen yombalal ñu ñu jariñoo njàng moomu ñu jàng ndax tamit jàng ba pare jariñoo woo ko ndax lan. ndax dafa am lu wàññeeku ci yow wéy laago nga loolu it xëy na dafa nekk loo xam ne ci siècle bi ñu toll nii waratul nekk lu nit ñi di dund donc nag euh, plan international ñu koy remercier di ko gërëm di ko sant ci ñëw bi mu tànn inspection d'académie de Thiès pour defee fi projet bi ñu nekk ci phase boo xam ne c'est notre première année ci projet bi mu war a durer neuf mois juróom-ñeenti weer ci juróom-ñeenti weer yi ñu tànn ci juróom-ñeenti centre yoo xam ne lycée technique tamit ci la bokk centre CREI ci la bokk ak yeneen centre département Thiès département Tivaouane euh, dinañ fa def projet bi ah ñaan yàlla tamit bis bu ñu toogaatee fii ba di ci waxaat ne résultat yi lañ am xale yu jigéen yii ma wër ni nekk xale jigéen yoo xam ne boobaa ñooy jël kàddu gi dinañ ko jël sax tey ndax dèjà niñ leen identifier indi leen fi ay xale yu jigéen yu am taxawaay lañu dafa ñu nekk di fa jàng waaye jàpp nañ ne bu ñu tàggatanteeg ñoom ba fii ak juróom-ñeenti weer incha allah dinañu gën a am kóolute ki seen bopp dinañu gën a am taxawaay ci seen bopp te ñun loolu rek lañuy ñuy ut vraiment ñu xam ne que ñoom elles ont la capacité el peuvent aller de l'avant Bonjour, moi c'est Ousseynou Diop, je suis le responsable euh, euh, du Hub Centre de plan international qui couvre les régions de Thiès, euh, Louga et Saint-Louis. waaw ab nga plan moom euh, defe naa ni comme ni ko j'ai waxee organisation la boo xam ne dafa jóg pour jàppale ndaw yi rawatina jigéen ñi ci lépp loo xam ne jëm ci seen njàng jëm ci seen wér yaram ak jëm ci seen nekkin ci biir askan wi donc projet bi ñu def nii Thiès nag dafa ñëw pour liggéey ak juróom-ñeenti centre yoo xam ne ni ñoom ñooy def ñu formation professionnelle te ci biir centre yooyu ñu xam ni kat boo seetloo lu lu bëri ci li muy am ay ay ay jigéen yu yu yu xaw a nekk situation bu difficile moo fay nekk ak ñi nga xam ne dañoo tollu ci ci ci dañoo nekk ay jeunes yoo xam ne ni euh, seen dañoo wàññeeku si ñoom seen cër yi ñu wàññeeku donc ci biir loolu projet bi jóg pour taxaw ànd ak IA liggéey ci ci ci centre yooyu mais yokk li nga xam ne ni mooy seen wàllu xam-xam yokk seen seen seen nekkin ci ci ci wàllu wàllu jeune confiance en soi mais aussi fexe ba li nga xam ne moom mooy seen seen mbébét maanaam ñëw jàngu formation génn am fooy nekk mën am ci looy téye plan jàppale leen ci loolu avec les responsables techniques qui sont nga xam ne nañ mën fexe ba bu projet bu jeexee ñoom daañu mën a téye ci lii euh, di ci dox bu yàlla def ñu nekk ay entrepreneuse wala entrepreneur di am seen entreprise yu ndaw di ci liggéey di jël yeneen ñuy liggéey ci projet bi